rely alors Chérif comme promis tey dañuy wax euh, ci euh, njëriñu réseaux sociaux yi. Mhm, réseaux sociaux euh, niñ koy utiliser comment tirer profit exactement des réseaux sociaux parce que dañu gis ni Sénégal ci communication digi digitale. Mhm. en tout cas les célébrités ni ko waroon utiliser utiliser u ko noonu wala xamuñu exactement nan lañ koy utiliser parmi les personnalités au Sénégal yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a ñoom lañ gën a gis ci réseaux sociaux yi ñu koy utiliser on va dire comme comme il se doit bu ñu jëlee par exemple quelqu'un qui est très actif ci ci réseaux sociaux yi autre euh, ci loo xamante ni ça euh, concerne gis ngeen euh, photo Bibo Bourgi mi nga mhm. xamante ni actuellement mi ci les journaux d' aujourd'hui mhm. qui poste lii c' est maître Amadou Sall mhm. qui est aussi l'un des avocats de de de de Karim Wade gis nga photo bii nii mi ngi ko mi ko tweeté et am na ci plus de cent et quelques commentaires juste pour vous dire porte bi nga xamante ni communication ci ci réseaux sociaux yi war nañ ko war na ci am à côté de cela il y a les artistes les artistes li leen le côté euh, promotionnel et le paradoxe c'est que euh, dañu gis que ni euh, duñ ko utiliser à fond mhm. ou bien duñ ko utiliser comme ni ñu ko waroon utiliser comme il se doit mu nekk une curiosité bi nga xamante ni dañuy dem à la rencontre de benn politicien mhm. ak benn chanteur que benn rappeur mhm. pour ñu wax ñu ñoom ils sont très euh, actifs ci réseaux sociaux yi ñu wax ñu exactement ñoom nan lañ koy utiliser on suit l'élément avec la réalisation de Demadaw réseaux sociaux ñu bëri la ñu comprendre ci biir mooy réseau mooy maanaam. Mhm. connexion mooy maanaam jokko. Mhm. sociaux mooy maanaam euh, loo xamante ne c'est familial wala. gën a mën a jege nit ñi gën a jege nit ñi daal exactement. réseaux sociaux yi lu mu lay permettre mooy instantanéité bi maanaam tey benn mbir mun na am. nga si saa si nga échanger ko ak ñoo xamante ne ne bokku leen sax environnement boo leen nekk interaction bu am solo la pour homme politique bi. tey boo xoolee boo nekkee artiste te amuloo compte Facebook amuloo compte Twitter amuloo compte euh, chaîne YouTube. loolu noonu sa communication day des. donc tu es obligé jàng yooyu ce la mais li nga wax nii am na ñoo xamante ne yoo xamante kii sax euh, email sax am na ñu bëri ñu ko amul ay no xam naa. Euh, man en premier Facebook c'est pour la promo déjà. waaw saa yu ma xëyee posté pour euh, waxtaan ak samay fan yi nuyu leen ne leen voilà je vous donne rendez-vous telle soirée. xaar leen ma maa ngi dem tourner donc chaque jour da ngay essayer tenir leen en leen leader politique yi ñu ci bëri. Euh, avant indépendance lañ juddu ak euh, peut-être. Euh, mais même y a des yi nga xamante ni nekkoon ci. waaw peut-être mais xam nga parfois ñàkk xam impact la. da ngay xool dara su amee sax facilement pour nga expliquer ko si sa page Facebook. rapidement nga expliquer ñu ah ñoo ñu ngi soog a comprendre et parfois aussi en inbox maanaam si suuf. waaw mën nga bind message. jël gars yi si suuf. bu fekkente ne ba ngi génne sa album tamit. Hmm. am na tamit ay chaînes yoo xamante ne comme euh, kii ay euh, euh, i télécharge wala wala iTunes wala whatever am na ay yoo xamante ne léegi ça te permet. de plateforme yoo xamante ne plateforme de téléchargement de musique la plateforme de vente de musique donc soxlaatoo génnee CD mun nga jaay sa CD digitalement toog sa kër poster li ngay poster euh, def sa compte bancaire def sa lekk sa lépp ku nekk ba Australie di jënd sa musique chaque fin du mois nga percevoir sa xaalis. am na ñoo xam ne soirée fii à partir de Facebook la ñuy commander si la ñuy seen billet. Mm. maintenant à partir de Facebook la ñuy réserver seen ñoo xam ne bu ñu bëggee jënd indi album ak ñenn ñoo xam ne à partir de Facebook wala Twitter la ñuy laajte fan fan la ñu mën nan la ñu mën a def ba am albumu Adiouza par exemple pour ñi nga xam ne xamuñu dañu ay la diaspora le Sénégal de la diaspora ñëw en vacances. Mm. donc euh, grâce à Facebook la ñuy nekk en communication ak Adiouza. ñi nga xamante ne amaguñ ko c'est important ñu dem wuti ku leen koy defal am na ñoo xamante ne seen liggéey mooy community manager. donc community manager mooy ay nit ñoo xamante ne seen liggéey mooy lépp. loo xamante ne dañ ko war a def pour nga mun a présent ci net bi say photo say concert say vidéo lépp loo xamante ne maanaam pour mun a permettre nit ñi ñu xam ne yaa ngi exister da ngay def concert dangay ngay génnee cassette da nga am soirée et cetera ñoom loolu mooy seen liggéey. say xool leader politique yu bëri dafa am ñu leen koy geral mais man dama jàpp ne ne si li ma jàng si si kii bi mooy euh, lii gën a am solo mooy nga mën a nekk en contact ak nit ñi. donc soo ko dénkee kenn euh, li mu en terme d' bu réel bu sincère bu si war a mun a am parfois du ko du ko am. am na ñoo xam tamit dañuy ragal réseaux sociaux parce que ñenn ñi dañuy foog ne réseaux sociaux. aussi quand la quoi am na ñoo xam tam dañuy jaawle réseaux sociaux ak jour sa journal intime quoi. Mm-hmm. attends su ma man su ma demee plage ba photo photo sol maillot de bain plage mais dama ko dugal ci réseaux sociaux naan voilà me voici à la plage bu subaa journaliste bi ko reprendre maam coow diine ak sa ak sa copain photo wu noonu allez selfie. Euh. non sama intime duma ko dugal ci Facebook am. mosoo ci dund pour l'instant benn mésaventure non. si forcément des fois les les dañu dañuy ñëw Facebook di la di la di la di la ah menacer di la di la demander ay yenn services yi wala tamit di la di la jéem a jàpp ci fii par Facebook. jàpp c'est-à-dire. te <laughs> faire la <laughs> <laughs> je sais su fekkente ne musique la ñuy def si année deux mille année deux mille deux mille quatorze deux mille ñu nekk nii nga bëgg a def musique te amuloo présence digitale y a un gros problème. donc euh, gis nañ ci politique gis ci. Euh, artiste comme quoi des euh, célébrités mën nañu profité ci réseaux sociaux yi. comme il faut ci préciser aussi que le député bi ngeen ci gis muy Thierno Bocoum moom troisième cycle en communication mi ngi ko def ci e-politique. donc loolu moo tax na mu gën présent actif ci réseaux sociaux yi pour mieux illustrer aussi ce qu'on dit regardez par exemple ces images de Paul McCartney l'ancien Beatles tout le monde mhm. connaît mhm. la légende euh, on va voir tout de suite les images avec euh, Régie mhm. euh, dafa donné concert surprise une heure avant sur Twitter sur Twitter mi ko defee euh, ba euh, fële euh, ca New York Times Square. Mhm. fa la ko njëkk a une semaine après bis repetita mu dem à Londres ci Covent Garden dans le centre de Londres et toujours une heure avant les tweeté que ne retrouvez-moi sur tel endroit en fait. tu vois ce que je veux dire et après gars yi ñëw foofu et vous les images c'était super plein après bien évidemment ça a été préparé avec son à, l'avance mais communication bi ci ci réseaux sociaux yi koy jaaree beneen exemple bi nga xamante ni c'est extraordinaire on se rappelle tous lors des élections. Euh, aux États-Unis le tweet de Barack Obama four more years quatre ans de plus pour nit ñi xam que ni exactement gagné les élections am exactement certitude et plus de retweets hein de retweets euh, à, l'époque et, sa photo avec sa, femme, très touchant euh, à l'époque on, se rappelle donc juste pour vous dire porte bi nga xamante ne réseaux sociaux am na ko ñi nga xamante ne mënuñu ko toppatoo quelqu'un ba nga xamante ni star la comme Pape Cheikh par exemple. merci ah mën na mën na mën na jël des gens comme Basile. Mhm. qui est euh, journaliste blogueur et community manager ñoom loolu mooy seen liggéey d'abord Basile merci d'être sur le plateau. ñu merci merci Cheikh merci alors concrètement lan mooy intérêt personnalité les célébrités d'être présents et actifs sur les réseaux sociaux yi. je pense que tu l'as souligné tout à si importance lan moo tax ñi nga xam ne ñoo ñooy personnalité nekk ay star ñu mel nii Pape Cheikh. merci encore ils n'ont pas amuñu amuñu amuñu jot. ngir euh, nekk ci Facebook bi. Mm. dañuy ut lu nga xamante moom mooy community management community manager mooy euh, la personne qui e derrière le compte. Euh, Facebook wala Twitter c'est des agences ay agences ñoo koy def. ngir euh, accompagner société bi wala nit ki. wala n'importe nga nekk professionnel. E-, e-, exactement mais euh, community management euh, Sénégal amul école bu koy def. Mhm. c'est parce que nit dañ koy def au fur et à mesure nga koy def à la fin nga am si. benn expérience. Mhm. nga nekk nga nekk sa liggéey. mais lu si am importance mooy tey ji boo nekkee da ngay gérer compte jàmbur tamit il faut que nga wax ak moom. Mhm. maanaam tey nga wax ak Cheikh Pape Cheikh nga ne ko ah, man maay gérer sa compte Facebook d'accord mais tey lan laay posté. loo war a publier exactement donc moom il faut mu xam ko parce que bu ko xamul mais justement bu ko bu ko xamul ça mm-hmm. pose problème nit ki mm-hmm. tamit mun nga am euh, maanaam sa sa xel mun na la may mm-hmm. nga poste lu baax ci moom mais am na yoo xamante ni ay information informations mu mënoo ko yëkkati rek teg ko mais justement qu'est-ce qu'il faut poster sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'il ne faut pas poster quand euh, euh, man lu may lu may naqarlu chaque fois si réseaux sociaux mooy lan tey par exemple star yi dañuy ñëw Facebook wane seen benn photo ñu ngi plage wala ñu ngi soirée ñu ngi feneen ñu posté ko seen page Facebook c'est vrai am nañu droit def ko. Mhm. mais tey jii euh, journaliste people bi di wër actualité bu ko neexee mën na ko jël ci Facebook bi. bien sûr lu tax parce que boo leen inscrire Facebook dafa am ay conditions général yu ñu defal. et pourtant kenn du toog. benn minute sax ne xaaral ma xool lan moo nekk Facebook c'est une stratégie c'est une stratégie pour wax leen ni que tey euh, Facebook warul nekk loo xamante ni comme mbedd la mhm. c'est la c'est la c'est seen vie privée waroon lañ ko def Facebook mhm. mais da di xam la loo ne publier tey jii man je si kon ko am doom ne man lii sama sama doom a ngi nii comme ça parce que tey on a on a vu sur internet ay affaires yu mel noonu yu bari mhm. maanaam tey jii nga dëkk ak nit kenn ki nekk sa voisin kenn ki cambrioleur la kenn ki sa xarit la nga génn si Facebook rek la lay surveiller tu soor nga ne maa ngi dem voyage. <laughs> y personne chez toi. Mm-hmm. mais le gars il peut venir chez toi sàcc lu muy sàcc dem yoonam. mais c'est vrai que léegi euh, c'est en vogue de parce que c'est parce euh, xam nga xam nga euh, xam nga xam nga lu tax loolu. c'est parce que léegi sénégalais yi je vais terminer sénégalais ñoom dañuy jëlee réseaux sociaux yi comme fooyukaay. Mm. or que loolu du fooyukaay. gis nga internet dafa nekk lu graaw mm-hmm. tey jii. muy muy bijou muy Pape muy muy Chérif muy keneen. Mhm. photo boobu tamit mhm. mënatoo ko dindi. ci perds les droits ou xam nga tey Sénégal xam nga lii droit. tey bijou da ngay def sa photo même boo fi dindee bijou Ndiaye sax. Euh, keneen moo ko yëg dagg ko rek. dindi bijou sax nee na bijou amul. mais pourtant Sénégal fii am nañu ay lois sur la société de l' yoo xam ne dañ ko fi teg. muy juróomi loi yoo xam ne ñu ñu ngi fi am société de l'information mooy tey jii nit bu la tooñee ci internet am nga droit dem ci tribunal wax ak moom. Mhm. mais problème bi mooy du am suivi. Ah, alors mais euh, euh, fàttali ne euh, Basile moom loolu mooy liggéeyam ah. et là ci li ñu ñëw mooy inconvénients yi maanaam tolof tolof yi nga xamante mën nañ ko am ci réseaux sociaux yi mais moi je mhm. voudrais que ñu gën a sur li gën baax. Mhm. parce que comme ni ma koy waxee TIC li ci ëpp moo ëpp li nga xamante ni moo ci bon. c'est-à-dire nit ñi ci baax moom moom moo je je aussi que Basile euh, am na ko xamante ni mi ngi ci kër gi mooy moom moo gérer communication digitale am et c' est Adja mën nañu ko de passage parce que moom tamit c' une c' est une personnalité boo xamante non seulement mm-hmm. dafa bëgg réseaux sociaux yàgg na ci mm-hmm. parce que man ak Digène de dix ans ñu ngi ànd mm-hmm. donc am na ay liggéey yoo xam ne ñoo koy def ensemble parce que loolu côté positif la jël nit yi dañuy foog nii que ñun euh, on est pour yàq der waaye du loolu cest à nit ki da am sa personnalité bopp euh, mu nekk si télé bi wala mu nekk si internet bi da nga na respecter ah, yooyu noonu exactement loolu c'est c'est un autre débat mais li ma bëgg xamal rek mooy euh, tey jii côté positif la ñu war a jël tey ji pour ñu mën a utiliser réseaux sociaux yi si si yoon bu baax mm-hmm. bañ bañ bañ ko ragal mm-hmm. parce que tey jii tamit euh, yéen yéenay yéenay seen seen waa bopp si internet mm-hmm. yaay wax loolu mooy génn yaay wax lan mooy dugg donc c'est à c'est c'est c'est à la personnalité aussi de dire euh, ce qui doit passer donc je pense que am na ay affaire yu bëri yoo xam ne nañu ci wax parce que c'est c'est un problème boo xam ni Euh, mënuñ toog pendant quatre heures de temps di ko waxtaanee wala une journée di ko waxtaanee juste pour revenir aussi ci li ñu doon wax léegi photo yi nga xamante ni dañ koy publier tout am na lu ñuy wax aussi euh, droit à l'oubli euh, mm. avec Google c'est un débat ailleurs mais certainement dinañ ci droit à l'oubli ça existe mais tey jii Google bu la ne droit à l'oubli tamit xamoo bu effacer sa lien boobu fa la koy dugal absolument donc loolu parce que gis nañ fi yeneen affaire la dina rediriger waat xelu nit ñi ci benn mm. affaire mais il y a des choses xamante ni dal na fi ay nit te c'est extraordinaire ci internet euh, loolu noonu peut-être Basile ça pourrait régler le problème exactement euh, mën na ko régler d'un côté mm. mais il faut savoir que tey jii euh, Google même bu la waxee ni effacé naa sa donnée effacé wu ko qu'on se dise la vérité dañuy dañuy a nax rek di jéem kii nii mais tey jii photo boo xam ne ko en boo ko defee recherche responsabilité. dafa responsable. c'est-à-dire bu ragal bu nekk yaa def sa photo tamit def ko Facebook nangu ko mais jëlal neel assumer ko nga ne ko lii man maa ko def. que ni ko jëlee sama yoon nekk si man maa ko def j'assume. loolu rek assumer ak responsabilité mooy les deux. may ga sutura dafa baax donc. suturaal leen seen bopp ci yi tey li ñu gën wax mooy yu baax ya yu baax yi ah. yu bon yi moom xam naa il faut que ñu def. il faut ñu ñëwaat ci dund ah. ah. Mm-hmm. da c'est pas eux. Mm. loolu moo tax ngeen am njëriñ. exactement ñu war leen a gis. Mm-hmm. pour ngeen gérer euh, euh, page. page yu Facebook yi parler de la sécurité surtout ñu ñu ñu ñu xamal nit ñi que tey jii euh, am nga droit topp nit ci yoon. Mm-hmm. ba la tooñee si internet loolu tamit c'est important. agence de l' de l' état ñoom ñooy lu jëm si àllum loi sur la société de l' tey jii boo duggee seen site wala nga tapé les lois yooyu yëpp mën nga si am mais xamuñu ko il faut def ñu leen di ñu leen di aar si loolu noonu en tout cas surtout ci côté euh, promotion wu artistes yi parce que c' important pour ñoom parce que Adiouza wax na ko ci élément bi loo xamante ne dañ dañ koy def te du ñu fay en réalité mm-hmm. et ñëpp xamuñu ko que Aliou Mender jaar na fi démb mm-hmm. génnee na albumam et mm-hmm. communication bu gën bees. ki ki lan ngay conseiller euh, Twitter euh, Facebook ou bien Instagram. alors tey jii fu mu toll nii euh, ku nekk ak sa zone bu ngay bu ngay bu ngay yëngu. tey jii euh, bu nekkee Facebook nga gën a sentir sa bopp bu nekkee personnalité mun nga nekk Facebook. mun nga nekk Twitter mun nga nekk Instagram. Mhm. mais c'est pas la même chose ak euh, ngay gérer e-réputation euh, benn hôtel wala beneen truc. boo xam ne hôtel bi ci obligé nga nekk Instagram. Mhm. parce que Instagram mu image mooy wax. Mhm. da ngay photo di fa teg. Twitter aussi ñi nekk ay star bon Sénégal di def ay télé war nañ ci nekk. parce que gis naa bijou mu ngi si mu ngi si yëngu bu baax. ak ñoom très actif ñoom <laughs> on est on est amis déjà si si si si Twitter loolu dafa bokk si communication tey jii waruñ ko. Sénégal dañu war a wax ni que tey dafa am chance parce que lan laay wax chaque fois que ñun ñi jeune ay xale yu ndaw lañu chance bu ñu am mooy Afrique tey jii pour mu développer wu dafa war a tëb mënul warul mënul mënul topp comme États-Unis mu def pour développer wu dafa war a tëb tëb boobu xam moo koy indi internet bu ñu am nii moo ñu mën a am chance ngir ñu mën a développer Sénégal absolument en tout cas c'est un sujet bu nga xamante ni bëri na ay pàcc pàcc yoo xamante ni mën nañ ci ñëwaat sur le plan sécurité par exemple les commentaires ah yëpp ci internet dinañ ci ñëwaat mais li encore une fois pour finir li ci ëpp njëriñ comme disait le chanteur y a 14 000 Pape Cheikh Diallo. <laughs> merci euh, Chérif merci lundi prochain on parlera encore technologie. parce que dafay am njëriñ. bu hmm. baax pour ñun ñi nga xamante ni euh, ñoo ci euh, soriwul yéen ñii an itam. Hmm. ngeen xam lu bëri euh, ci lépp lu jëm ci wàllu jumtukaayu xarala. Hmm. alors on va marquer une petite pause ah pause bi c'est juste pour vous montrer teaseru dina ma neex.